bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kon tey ñoo ngi Daaru Salaam ci kër Serigne Modou Rokhaya mi nga xam ni moo initié woon jëmmi addiyee ji chaque année annuellement 1983 woon booba 3 millions 500 jëmmi nag addiya njariñ ci lañ war a waxtaan addiye mën nga koo jàppe rek infaq fi sabilillah muy jox alal ci yoonu yàlla moo tax baa def ko muy ponk bu am solo lool ci yoonu murit ndax joxe dafa am solo lool yàlla bëggu ko lool di ko lëkkaleeg toujours ci alxuraan julli wala léeg-léeg gëm yàlla gis nañ qul li ibadiya alladina amanu yuqimu solata wa mimma wala wa yunfiqu mimma naa yooyu yonent bi waxal ñi xam ne dañoo sama jaam ñi nga xam ne dañuy dañoo gëm ñu taxol jullit di joxe alal seen yoo ci yoon yàlla ak aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu bima jaalakum mustaxlafina fii kon toujours alxuraan day lëkkale jëmmi jëmmi joxe ak gëm yàlla ak julli mu nekk lu am solo lool nag bokk ci ay njëriñam njëriñ yoo xam nañ koo nekk mën nañ koo limité xam ko am la njëriñ yoo xam ne kenn mënu koo xam yàlla moo xam moo yàlla day wax ni joxe day mel ni ku jël benn pepp ji ko suuf pepp woowee saxal juróom-ñaari gub gub wu ne am téeméeri pepp loolu kon day mel ni day wax ni kon benn boo joxe rek yàlla mën a goful ba téeméer waaye ba fukk ba lu ëpp téeméer jëm ay junni ay ba yàlla wax ni wallahu yudaa'ifu liman yashaa yàlla mooy ful di àggale yoolub joxe fam soob yàlla moom moo tax Sëriñ moom bi mu ñëwee di wax njëriñu addiyal bi ko si Moussa doo am joxe junni eh, dërëm yooyu ma ko joxoon wala junni dërëm yi ma ko joxoon dinaar Sëriñ Tuubaa ne si Moussa maa nga lay xamal lenn ci njëriñu addiyal waaye bokk na la mu ko waxoon nee na ko bokk na ci da nga say maas waaye dangay gaaw a jéggi siraat waaye da ngay mucc ci malaaka yi laaj ci biir bàmmeel waaye da lay musal ba tey maanaam it ci maanaam mujj gu ñaaw waaye day tax ba tey it nga am ay ngëneel yoo xam ni yàlla moo koy jagleel. mu ne ko nag njëriñu addee bokk na ci euh, euh, saa yoo xamante ni joxe nga ko doo am looy ragal fi àdduna ay doo am looy looy tiit àllaaxira kadalika loolu nag moom sëñ Fallou moo waral. siwir mu roqee ci gisinam ak njàngam ma bëgg lu baax daal di créé bis bii nga xam ni bis la boo xam ne moom moo ko dëkk initié muy bis boo xam ne bis añte boo xam ne lii sabab bi mooy dajale alal jëmee ko fan jëme ko Sëriñ Tuubaa ci liggéeyu màgg bi muy liggéey islaam te loolu lu am solo la lool Sëriñ Tuubaa nee na moom jëmi addi ay njëriñam lamañ mënu ko tudd waaye xale mënu ko bind waaye joxe am solo lool yàlla am na ñaari malaayka yoo xam benn malaaka mi liggéey mooy day xool ñiy joxe ñaan yàlla mu gën leen a may luñ joxe rek yàlla wutal leen ko am malaaka moo xam ne liggéey mooy da ñaan yàlla ki lu joxe di téye bañ a joxe yàlla la mu yor na koy sànku nay réer na koy ñàkk nay sànku comme la kon joxe am soo lool te joxe saa yoo defee rek yàlla daf lay wutalal lu gën lu ëpp la nga joxe woon defal la aw yiw woo xam say balance yomal xiyaam mën naa fees dell ci sababu joxe gi nga joxe moo Daaru Salaam am tawfiiqu njëkk a initié bis boo xam ne ñu koy joxe addiya ngi si Tuubaa loolu Daaru Salaam mu njëkk am si ngaawaan yi nekkoon joxe waa kon bu bu siiw lool eh, ba ñëpp xam ko ci Sibir Maamun ñëw jumaay Tuubaa bi nga ko dooree rek gis ñu fa njëkk wax jumaa ji mooy Sibir Maamun te bi mu joxee lan lu ko joxee mooy million jamono joojee ba ak almet lool day fi ne ni kon ñoom xam nañ wàcc waaye joxe moo war a def seen sët bu baax bi di sëñ Modou Rokhaya indiwaat ko ci façon boobu waaye sëñ Cheikh mi ngi nekk daal écart këram yàlla may ko moom muy jàmbaarool joxe ñoo ñaanal sëñ moor Gaawaan ñaanal sëriñ Jiidi ñaanal sëriñ Abo di ñaanal mbooleem waa Daaru Salaam gépp ñaanal Cheikh Sine Gaawaan yëpp yàlla àggal seen yéen taxaw sàmm leen waaye yàlla àggale mbooleem yéen ab jullit tey def ñu ñuy ñoo xam dañuy joxe mu néew mu bari yàlla def ñu làq ci ngërëmu àdduna Sëriñ Tuubaa ci àdduna ak ci àllaaxira gën jëm